donc le problème moom mooy c'est-à-dire que c'est sa gestion du basket il a une gestion calamiteuse c'est-à-dire que xam nga maître Ndiaye c'est c'est c'est un complexe dafa dafa am complexe ba pare ragal les fortes têtes ba pare ñemewul débat ba pare en personne normal et loolu yëpp on peut le comprendre mën nañu ko tënk parce que dafa xamul basket xamul dara si basket maître Ndiaye il faut que vous de ça il y a il y a cinq cinq dañu daan tëgg si kaw si kaw si c'était supporter Maître Ndiaye musul bondel bal musul jeu musul sànni si biir paje wax leen ko mu jë boo leen demee foofu stade nee leen ko remettre jëlal bal bi nga bondel ko sànni ko si biir paje basket bi da ngeen wax ne on l'a confié à quelqu'un ki ni moom ci mbir mi mais on l'a tous les gens qui tous les ténors je peux tous les citer Samba Gueye musul basket Mandugal musul basket Babacar musul basket Mamadou Ndiaye musul basket directeur technique national bi sax est-ce que mu euh, kii Madi Diop mus na basket sax loolu dese na ma wóor parce que j'en sais rien parce que je trouve qu'il est nul dans tout ce qu'il fait au niveau du basket. ñu ko gën a ay ñu ngi fii fuuf te basket bi su fekkoon maître bëggoon na basket bi dox day jël ñoom ñëpp sànni leen fële dem jël des gens capables de de gérer basket mais un gars comme Vieux Vieux Ndoye mais Euh, c'est Vieux Ndoye, mais pour ceux qui ne le savent pas, en 2010, c'est lui qui a qualifié l'équipe nationale du Sénégal pour en 2000, mille euh, euh, ce mille championnat d'Afrique bien Côte d'Ivoire, je ne me rappelle plus. C'est lui qui a qualifié le Sénégal à la dernière seconde pour Sénégal mener une coupe, du, coupe, de, coupe, coupe, du Monde en prenant la troisième place au détriment de, de la Côte d'Ivoire. Mais un gars comme ça, mais qui était le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal mais un gars comme ça mais kooku lu mu mer mer mer mer mer mer mais lu mer mer mer mer mer mer. mais war nga dem ak équipe nga toog de mais président qu'est-ce qui se passe lan la quest que tu veux quel congé nga man utuma xaalis utuma alal utuma poste utuma utuma utuma utuma dara la ma quand j'étais président de la fédération sénégalaise de basket au contraire lui est que il il n'est pas supporté par l'équipe équipe bi buy voyage équipe moo koy fayal billet d'avion mais man suma billet d'avion maa ko daan fayal sama bopp et je ne voyage jamais boobu ana état mi leen doon accompagner. mais l' état accompagne mais l' état accompagne les les joueurs man balaa bu ma doon jël bu fekkee damay jël xaalisu état ak joueurs yi pour di si fayal sama bopp billet d' avion à part de ce moment je ne je pas quel est rôle de président euh, bu nga xam ne moom laay joué donc man soxla ma privilège mun naa pri mën naa gérer suma problème mu bopp mais c' est à dire que dama joxe sa xalaat si basket bi mais ça ne du yàq dara yàq dara. mais bu fekkee maintenant ne tu veux une gestion solitaire ba pare def lu la neex jël ñu la neex mais des primitifs du basket qui ne connaissent rien au basket je vous ai donné le cas de Mandogal le cas de Mandogal mais il a fait du si mel ko def taat mel et puis en face dafa yaakaar ne même jigéen moo nekkoon en face benn benn vidéo jigéen mu yaakaar ne jigéen moo doon nekk en mais en fait boo modu je crois que on lui a benn vidéo jigéen góor la doon waxal qu'il s'est permis lui-même de se filmer tout nu mais film yi bu yàggee nañ ko jël dugal ko seede porno ku ma ko abon na ko dugal seede porno ñëpp dem xool ko foofu mais moom gis na maître gis na film bi mais comment tu peux voir un film comme ça un délégué fédéral un responsable du basket ba pare nga koy bàyyi si biir basket bi mais man yu ne noonu bu doon suma rakk ma bokkoon day bàyyi sa c'est sanction suprême dama lay dàq si basket bi Parce que j'estime que tu n'as pas ta place. Parce que le basket, c'est une question d'éducation. On a des enfants, on a des minimes, on a des cadettes, on a des juniors, on a des, même des mères de famille qui ont des basket, ils ont mais nga dem jël un comme ça ça nga dem dugg ko si biir jigéen ñi foofu non c'est une honte c'est une honte et puis maître au lieu de sanctionner ce gars muy jéem a moom dafa mel ni on a l'impression qu'il ne connaît rien de la de de de de la de la. mais mais mais mais mais mais mais maître tamit euh, defe naa ne donc moom mooy président bi nga xamante moom moo am en charge maanaam basketball sénégalais bi mais tamit moom am na ay kilifa ndax nekkuñu ndax ils ne sont pas au courant tamit nag ci mbirum gestion basket bi. waaw mais am na ay kilifa mais kilifa yi ñoo ko jàppale loolu xam nañ ko. mais ñun duñ ci wax. mais Sénégal tey jii à travers le monde entier nous sommes reconnus comme une grande nation maanaam de basketball yàggul dara coupe du monde basket bi trophée bi yegg si na Sénégal donte gisuñu la ci donte tamit gis ni gisuñu ci ñenn ñi comme d' après ni nga ko waxee ci sa conférence de presse woowuñu la ci mais du yow doon am na ñeneen ñoo xam ne dañ leen a xaw a euh, ci mbir mi. oui mais mais loolu loolu loolu le fait que coupe du monde bi ñëw fi Sénégal c' Euh, c'est-à-dire que jël coupe du monde bi wëndeloon moom ci dëkk yi nga xamee ne le Sénégal est qualifié bon ça c'est créer de l'attraction c'est bien moi je j'approuve le fait coupe du monde bi ñëw fii j'approuve euh, mais le fait moi de me zapper man bañ ma. donc donc bu ñu comprendre bu baax donc cela veut dire que ndax Baba Tandian maanaam ñàkk boole gi la ñàkk boole ci basketball bi fi mu ne moo la métti ba tax na ngay génn di def ay sorties. non xam nga ñàkk boole man maa ñàkk boole sama bopp. su ma bëggoon bokk ci basket bi il suffit tout simplement que je fasse le larbin comme tous les petits larbins qui tournent autour de maître Ndiaye rek ñëw foofu rek eh maître na nga def yaay c'est bien macha ñeme ñeme mais suba ñu boole la ci yëpp ci mbiri mais loolu bu ko bëggee am ci man day kon day dee suba du ko am day dee day naaw si kaw garab du ko am mënu ko am. parce que dama am personnage suma personnalité maître Ndiaye personnalité comme personnalité lay bañ c'est pour ça que ñu pas vieux Ndoye vieux Ndoye dafa am personnalité. parce que vieux Ndoye keroog gis nañ ko mu ngi woon sa wet bi ngay def conférence de presse mooy sa relation ak vieux Ndoye ak moo ko indi ci sa conférence de presse. vieux Ndoye aucune relation vieux Ndoye sax j'avais même des relations tendues avec lui quand j'étais président la fédération sénégalaise de basketball qui fait que man ak Vieux on a toujours des rapports tendus mais on avait quelque chose de commun bu nga xamee ne. xamante nañ ko diggante ñun ñaar mooy ñun ñaar ñëpp dañoo bëgg basket il savait que Tania ak lu mu mënta doon quel soit le problème financier le problème truc c' quelqu'un qui adore le basket et quelqu'un qui connaît le basket parce que c' quelqu'un qui est né dans le basket n'oubliez pas moi je suis basketteur je donc c'est pas le cas de maître donc maître je n'ai pas de problème avec lui mais c'est que bu dee l'armée la moi je ne suis pas à l'armée et moi je dis coupe ma qu'il pas ça je peux le comprendre je sais qu'il va le faire parce que en fait maître fu ma gis rek il mal à l'aise maître même bu ma gisee biir stade Marius Ndiaye bu ma gisee ma dugg foofu il est mal à l'aise mënu ma tere ma dugg foofu te dama leen di wax leen te pourtant Marius Ndiaye tous les jours saa yu maître duggee foofu il voit Baba parce que chrono bi nekk Marius Ndiaye chrono bi nga xam ne gars yi di joué di chrono bi Baba Tandian moo ko moom man maa ko moom man mii maa ko moom maa ko jën ak suma xaalis avec l' argent de l' imprimerie Tandian la facture la là euh, classée niveau de l' imprimerie il n' est pas au niveau de de de la fédération c' est une facture c' est c' est moo jënd chrono boobu ñoo monté ko ci stade bi ba pare mu dajal may dem ma dem ma bàyyi fa chrono bi lan dee chrono kon nag saa yi boo buggee baare Tandian. boo bëggee sippi tànjaay boo bëggul tànjaay ñu xam mais à part de ce moment kon kuréel bi danga koy wekki parce que kuréel bi ñëpp xam nañ ko Baba Tandian moo ko moom. loolu am na solo mbokk internet yi ñu leen di fàttali rek tey ñu ngi dalaloon ci entretien bi monsieur baaba Tandian xamante ne homme d'affaires la waaye li liñ ko gën a ci askanu Sénégal moom mooy tey mbiru basket bi ndax ku gis tey sax ni nu solo defe naa ni euh, c'est le sportif moom moo toog. l'amoureux maanaam du basketball sénégalais moom moo toog dafa fekk ne nag fan yi dafa def conférence de presse nag doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi ci mbirum gestion basket Sénégal euh, ba am na lu mu ci leeral tax na tey ñu dikkaatoon ak moom ngir mu am lu mu ñu leeral ci mbiru basket bi defe naa euh, wax nga ni gestion basket bi am na problème amoo problème personnel ak maître Ndiaye donc tey lan mooy recommandation yi nga xamante ni tey donte fas yéene ñëwaat doon tey ji ni un président de fédération mais nag nga fas yéene tey ji ni gunge basket bi donte boolewuñu la ci. waaye xam nga euh, basket bi. comme ni ko benn homme politique célèbre waxee jusqu'à l'extinction du soleil je parlerai du basket jusqu'à l'extinction du soleil je parlerai des mots du basket saa yi ñu defee lu baax soit mu approuvé mbaa ma noppi mais bu ñu defee lu mel ni ay jalgati xam naa ay jalgati yu bari xam nga man euh, homme d'état la am na loo xam ne duma ko wax am na loo xam ne duma ko wax mais bu ñu yaakaar ne que j'ai des pas j'ai championnat d'Afrique bi li fa xewoon yëpp bu mujjee bi lañ fa dépensé lañ fa def yooyu yëpp suma loxo la nekk j'ai mais euh, dafa am loo xam ne jar na wax ak loo xam ne jarul wax donc yenn yi da nga koy denc bu si kanam il faut que ces gens comprennent ça et qu'ils fassent très très attention parce que lu ñuy def yëpp xam nañ ko donc maître euh, je ne je ne je n'ai pas de recommandation à lui parce que il se croit suffisamment intelligent pour dire Mais moi, je dis que chaque fois qu'il fera un faux pas, eh on le dira. Et le premier, l'un des faux pas qu'il a mooy Dem, Coupe du Monde, nous, filles, ils ont ils ont d'après les informations même que j'ai sax dañoo profité sax la la présence de de de de billets ici machin pour dem dugg comme ni mu koy defee rek chaque fois a une rek il veut organiser parce que waa ji loolu rek la xam organiser championnat d'Afrique organiser championnat et or le problème n'est pas d'organiser un championnat d'Afrique le problème c'est de faire marcher la discipline boo ko laajee gisee boo ko déggee muy wax oui le basket il faut que loolu mu xam ne depuis 1960 le basket c'est toujours joué au Sénégal mais dans quelles conditions c'est ça le vrai problème et lui les conditions il ne dit en fait c'est ça mon problème avec lui c'est les conditions qu'il faut améliorer pour que le basket puisse jouer correctement jouer bien et jouer correctement c'est deux choses différentes donc moi je dis euh, balaa ngay dem di organiser euh, coupe du coupe d'Afrique coupe d'Afrique pour les filles mais parce que en fait événement la bugg événement xaalis dugg xaalis bi di di jàggati ko si biir def naka jur noonu parce que ils vont faire un bilan à la merde un bilan merdique vous m'excusez du terme ah un bilan bu nga xam ne personne ne comprend rien et ce qui fait que euh, euh, le résultat importe peu et or que le résultat est de beaucoup plus important dans la mesure où la ngay organiser pour nga xam ne da nga koy organiser parce que man su fekkoon man maître amoon na xel bu ndaw euh, et qui réfléchit et qui il, il, a, il a une certaine conscience du basket. Mais il a une possibilité avec euh, le président de la République sur deux actes. Premier acte d'avoir construit un palais de sport au Sénégal où personne n'ose rêver. Moi, en tant que président, ancien président de la fédération, mais vraiment, je l'ai rêvé et il a eu la chance d'être construit pendant son magistère. On le félicite. Moi, je le félicite ça parce que si magistère c'est une bonne chose. Mais c'est président euh, Macky Sall le sport sénégalais. euh, les lutteurs ont eu leur part, les footballeurs bientôt. Et ça, il faut le saluer. Parce que, euh, avec Matarba, j'ai vu qu'il y a moins de. Parce que si les milieux de sport que je connaissais avant, si Maître était tombé sur ces gens-là, Maître Ndiaye aurait filé, de, de filé depuis longtemps. Parce que pour basket du il faut regarder sa khalis. Maître Ndiaye, il avait dit depuis le départ que Douché de Khalisam. Mais par contre, il a mis son et comment la a fait aller lui poser la question. mais il mettra problème xam naa bu ñu ko accordalee bu ñu ko accordalee incha allah maître Ndiaye du ñàkk moom i tamit ñu gis ko mu indi ñu ay leeral ndax gis nañ ni tamit mel na ni lu nduru tëkku nee nga yaa ngi koy soxla à tout moment bu paree rek ngeen jàmmarloo ci plateau waaye ci information ñu am à chaque fois dafay décliner lool defe naa liñ nu meen ci waxtu euh, daanaka ñu ngi ci cappaandaw ga euh, monsieur Tandia xanaa rek dañ lay bàyyi nga wax ñu sa kàddu gu mujj. waaye ku ma kàddu gu mujj ba boo leen gisee maître ko. je réitère l'invitation na bàyyi di daw parce que njomboor du daw njomboor njomboor njomboor njomboor mooy daw je veux dire na bàyyi di daw parce que basket bi ñu ñoo ko bokk du ma ko lekk du ma ko saaga du ma ko fees je suis respectueux des personnes et lui-même particulièrement je le respecte vraiment aw ma aw ma côté boobu daal sincèrement moom Vraiment, je je je je je j'ai rien à lui dire je je le respecte mais dañuy wax ci affaire basket sur sur surtout les gens yi nga xam ne il les a utilisés pour ñu koy wër parce que il n'a pas besoin en fait de ces gens-là. Il n'en a pas besoin il est président pendant quatre ans il peut travailler même avec des fortes têtes même avec des gueulards et eh bien kenn mënu ko folli fu mu nekk donc il peut travailler avec des gens xam nga man quand j'étais président je vingt-six membres et je compose avec eux dañ ma daan critiquer ba de chip dañ dem plateau télévision ñu critiquer ba de chip mais bu ma génnee ma dem si biir kër je faisais je regardais la bande je regardais les clips ma xool lu si lu si baax ma jéem ko récupérer pour essayer d'utiliser dans le basket c' comme ça que je fais c' pour ça que le basket marchait et parfois je provoquais même la presse pour exactement pour ñu gën ma attaquer pour ma gën a xam exactement quel lu ko neex il ne veut pas de la contradiction il ne veut pas que les gens le le contredisent mais donc finalement genre euh, politique de l'autruche lay lay def bopp bi mu ngi ci biir bëggul wax kenn bëggul gis kenn donc voilà mais kon nag yàlla na ko yàlla dimbali bu fekkee nag il pense que lool moom mooy doxal basket bi. kon ñaan googu la ñuy tëjee rek yàlla na ko yàlla dimbali ndax ndamu basket bi moom bu amee rek mu doon ndamu Sénégal. ñu ngi doon dalal baaba Tandian ci entretien tay bi mu doon waxtaan ak ñun ci sorti médiatique gi mu def fa ni muy conférence de presse boobu mu wax ci mbiru gestion basket ñu ngi leen di jox dig daje beneen yoon rek ak keneen rek ak Dakar di point net mi leen di informer au rythme du temps.